bokku julli di bokki taalibe yi bokki réew mi ñu ngi nuyu mboolem ñi ci àdduna si yëpp ci aalamul islaam yi yëpp di ndokkeel mboolem fu julli ne ci àdduna di ndokkeel rawatina nag waa Sénégal ci ci at mu bees mii di bëgg duggu dugg tey incha allah di ñaan yàlla suñu borom ju dugg ci ci jàmm. génn ci jàmm mu nekk mubaarakul ibtidaa ni ko sëriñ bi di waxee mooy moonul aw bi ibaratin uxra mooy moonul iqtidaay di nuyu ñëpp nag di tàmbalee siyaare bi ak ndokkeel gi ci ki nga xam ne tey moo doonu Sëriñ Tuubaa te Cheikh Mouhamadou Mountakha xafidahu llahu taala wa ayadahu wasaada min nasrihi yàlla ñaan yàlla suñu bam dëgëral ko sàmm ko ak mboolum kilifa diine ci réew mi yëpp ak mboolum kilifa diine yi ci àdduna yëpp ndax moom moo doon Serigne Touba te Serigne Touba moo doon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bind fu bëree bëree bëri ne doon gi mu rasulullahi nag lépp ko feñal moo tax mu jabootu jullit yëpp fu jullit ma nekk rek Serigne Touba ci njabootum la moo tax biñ ko laajee laajoo noonu la tontoo kon nag Serigne kon ñu ngi ndokk tàmbalee ndokk rek ci Serigne bi ak mboolem kilifa diine yi mu ko seqal yëpp ci réew mi bàyyiwuñ kenn di ndokkale ñiñ bokkal adduna si ndax dañoo bokk ñoom suuf si te Serigne Touba dafa wax ne waraaxi fii kulli xalqin xaq man xalaqa na nga sàmmonteeg ak képp. mépp mbindeef mbindeef nag buñ ko waxee lu dul suñ borom rek ci la bokk at mi ñu dugg nag ñaan gi sëriñ Touba am na fu mu waaye ñaan gu yàgg nag ndax liñ ci war a jàngate mooy jàngat ci at mi weesu rëcc rëcc yoo ci def nga def ko dars ngir bu ëllëgee mu laa dalaat at muy dugg itam nga fexe ba bàyyi xel ci fa nga jëm ndax xamoo da ci génneem jàmm jàmm da nga ci génneem jàmm yàlla nañ ko yàlla nañ ko fekk wax kon li ñuy tuddee xisaab ku ci toll war nga koo def sa bopp xool ba xam rëcc rëcc yi nga ci def at muy dugg itam nga xool li nga war a def ñoo xam ne nag amul hijjat bi ñuy bëgg a dugg di muharram xam ngeen ne ci taarix daa ngeen dégg sana farisiya xam ngeen de itam milaadi yéen a ngi koy dégg te ñi ëpp ci adduna si rawat na sax ba ci jullit yi ñi jàpp ñu ngi ciy tënku te laa nu farixu bayna ahadim rusuli yi waaye xaamul fii lii daa ngeen ko dégg mooy li li di li wolof fi daa wax rek atum benn bëri góob yu mel ñu nag amul hijrati mooy sunu at gàddaay gi nag ku ne xam na ne amewutoon ci muharram ci li gën a siiw ci weeru gàmmu la amee woon waaye Seyduna Omar ca farlu ga Omar ibnul Xattaab farlu ga ak njàmbaar ga moo wax ñu tàmbalee ko ci muharram kon muharram mooy mooy feetu tàmbalik atum jur gi muy loo xam ne nag ñëpp war nañ ci gën a bàyyi xel gën ko fonk ndax nañ xam ne kat suñ lépp ci la tënku ndax ponk lislaam juróom la ginnaaw ginnaaw shahadatayni mooy julli mooy ibaadu diini te mooy bu ci jiitu mooy ponk bi gën a màgg fa man aqaamaha faqad aqaama diin wa man hadamaha faqad hadama diin asaka koor aj makka liman istataa asaka moomu nag boo koy natt tey boo koy génnee ci atum julli nga ko mën a génne mënoo ko génne ci atum nasaraan ndax boo ko génnee ci atum nasaraan njuumte dalay dal ndax kon at mi dana matal génne woo asaka te wa aatu xaquhu yawma xisaadihi bu dee ki nga xam ne dafay ci ci mbay lay def waaye ki nga xam ne day commerce itam ci at mi la ko war a bu at jeex rek tolloo ci amul hijjat lañ ko mën a natte li ñu tuddee idda ci kuñ fase wala mutalaqat xam nga ne lu bari am na ci jërul guddal waaye loolu lépp ci amul hijjat lañ ko mën a génn lañ ko mën a xamee kon lislaam léppam léppam lu fonk rek ak lu xam ci amul hijjati ndax dañoo tolluwut ndax amul hijra di atum gàddaay gi trois cent soixante cinq jours la bu dee menn at mu mi ci des danañ ëppante mais trois cent cinquante quatre lay doon bu ma jumut fukki at ak fukki fan benn danañ ko rawante mooy tax muy muy muy moo tax ñii dañuy wax chamsi ak xamariya waaye kon ñun nañ xam ne lii mooy suñu at rawatina nag ñun yoonu murit ñoo maa ci suñ geneen jegleeg bopp ndax Serigne Touba mbindam yëpp minal awal ilal axir amul fenn foo xam ne mas ngaa gis mu datte ci miladiya datam yëpp ci hijriya hijriya lu ko def ah, xaritu yowma sabti thamina asar li xidmatu muxtaar fii chahri safar xaama ak sasin xaama jeesasin raamoo masi laa jubin la daal la sasi yooyu yëpp bari na bari na fu mu ko bind boo ko baksasin xaama shahid naa bi karamin yooyu yëpp xaama shahidoo lii bi karam bari na Serigne def benn taarix ci dul miladiya kon ñun amaan nañ ci suñ jagle bopp mboolem yi nga xam ne itam sëriñ bi fonkoon na ko daa ko lislaam andi ko day ni ci amul hijjeet lañ mën a sukkandiko gàmm gi nga xam daana ko dundal ci amul hijjeet lañ mën a sukkandiku weeru koor tam ci amul hijjeet lañ mën a sukkandiku ak mboolom lu ñuy def rek lu lislaam santaane li nga xam ne santaane woon na ko gi itam xam nga ne ci amul hijjeet lañ ko tànn tànnuñ ko ci mbir ndax bu dem bi daal dee dee tuxu kon loolu lépp mën naa gën a bàyyi xel ñu ko fi wuti ginnaaw ñëpp itam yi ñu santaane waat seen ginnaaw ci ginnaawam. yëpp ci xamul hijrat la xëy na muharram gi nga xam ne ak Cheikh Mouhamadou Moustapha mi ko njëkk a wóotu bis bi mu njëkk a wootee sëriñ bi ashrina muharram ci la ko woote woon. Cheikh Mouhamadou Fadil tam bi muy dundalaat woote sëriñ Touba ci màggal a thamina asar min safar la ko def bi muy digal waa Daaru Muxti nisfu Shaaban ci la ko jàpp Kazu Rajab ak mboolem bis yi ci des yëpp xam ngeen ne ba ci ak Cheikh mi nga xam moo mujj ci njabootu Serigne Touba bi muy soppi njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara seen màggal gi gii ñuy def tey di kasu Saxbaan xam ngeen ne loolu lépp ci amul hijrati la kon amul hijrati dal nañ xam ne ñun mooy suñu at te suñu borom dafa wax ci alxuraan ne inna diina inda llaahi l wa man yabtaxi xeeral islam yi diinan falan yuqbal minhu kon loolu rek doy nañu sëkk aw lay ci nuñ ko war a gën a waajal gën koo ne fonke te xam ne kat juli yi niñ bare ci àdduna di ay milliards tey buñ gënee fonk lool rek dana mujj dem ba amul hijjate sax mooy not ci àdduna te jàpp naa ne yàgg-yàgg foofu lay jëme ndax lislaam moom mooy dëgg te mooy mujj itam te suñ borom wax na fu bari ci alxuraan mais ak mujj moom ñu ne ci lu baax rek ñoo ko am kon ñu ñaan ñu dugg ci jàmm di sant nag Serigne Aliou Thioune mi nga xam ne mubaadara tayiba bi moo ko am bii xalaat bu rafet yàgg na ko def nag di ko dundal den rek mu am ci beneen yëg-yëg bu mu am ndax moom xam naa ko euh, li ngeen di wax tàmbalee ci sëriñ bi yem ci sëriñ bi bokk na ci ñi ko yàlla defal. du fi ñëw mukk di la wax yite àdduna du fi ñëw yëkk mukk di la wax soxlaam foo ko lu mu lay wax rek lu yëkkati yoon wi lu yëkkati màggat gi lu yëkkati dëkk bi moom lay dund di ko di ko di ko dox di ko di ko di ci nekk guddi ba ci kon nag yàlla na ko ci yàlla gën a gàttandu ci barke Sëriñ Tuubaa dafa ko ci tawfeex te dafa ñu tawfeex ñu itam nag bañ bañ ba suñ dara bañ a génn Sëriñ Tuubaa ñu tàmbalee ci sëriñ bi yem ci sëriñ bi ndax doy ñu sëkkat fàggul nañu adduna fàggu fàgguñu àllaaxira la waxoon rek defe naa leen loo xam ne buur du leen dàq fu muy tëdd buur du leen dàq lu muy sol te kuy rëbb buur teggi leen loolu nag nekkut xayaal waaqewul mat mus la lu ñëpp dund la képp ku bokk ci moom rek teral na la te saa soo xëyee teraange ji la yokk kon nag loolu maa ngi ciy dugg rek di ndokkee ñëpp di ñaan itam doomu adama du mat yàlla nañ yàlla gën a dimbali gën ñoo xiir ci ñu di ko jàmm te sellal jàmm bi gën ñoo xiirtal ci liggéey Serigne Touba te liggéey bi ñu du ko bañ a rax ndax mata doomu aadama waaye yàlla ñu sëriñ bi dimbale gàttanuñ ci ba lépp loo xam ne nekk na ci ñun te dëppoot ak bëgg-bëggam yàlla na ko génne ci ñun yoon wi nga xam ne bëgg nañu tegee ci te mooy ihdina siraatal mustaqim yàlla ñu yàlla dimbale ci barki Serigne Touba ci daraje weer wi kat nga xam ne siiw na sëriñ bi cere feeñ ci kaw suuf kon amaa nañ suñ jegleeg bopp yàlla nañ ñu dimbali gàttal ñu ba lépp lu ko neexu ci ñun yàlla ko dindi te te te saxal ci suñu cër ak suñuy xalaat ak suñuy jëf lépp ñu jël suñ lépp jox ko ko te bañ cee desal dara bañ cee bañ bañ cee bañ ko jox lii bàyyi lii wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa